télévision Futur Média mbokk yi jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax dellu am mbégte ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës ay xibaar la yu ñeel bëccëgu tey gi premier mai fête la gu ñu jagleel liggéeykat yi ñu màggal ko fii ci Sénégal ay centrale syndicale yu ci mel ne CNTS CNTS FC CSA ak UDTS daje woon fële ca place de la nation di place Obélisque lu aju ci liggéeykat yi ak anam yi ñu liggéey mu di condition de travail yi ak ni ñu bëggee ñu xoolaat ko rawatina ci ci privé bi daanaka kàddu ya fa la jëm mu doonoon ci teewaay jëwriñ gi ñu dénk wàllu xëy mi di ministre travail di Samba si dellu si na di xamle daal yoon yi mu jàpp ne ca la ñu war a jaar ngir gën a ñoŋal Euh, nekkinu liggéeykat yi mu nay waxtaan yu wér moo ko mën a maye dox ci diggante syndicaliste yi patrona bi ak état bu Sénégal ngir kon njariñu liggéeykat yi mën a feeñ jiitu réew mi Macky Sall tàllal loxoom wooteeb dialogue waa grand parti joxe ca seen xalaat ñoom ñoo ñooñu nga xamante ne ji kon ñooy ndaw yi jàppal tànk parti bii di grand parti xamle nañu ne dialogue bon bu doon seen sago duñ ca teew ndax sincérité gi ca war gisuñu ko ca gis-gis biit euh, dinañu ànd ak i leeral yu bàyyeekoo ci Mor Diaw muy koordinateur national bu ndaw yu grand parti ci euh, xibaaru euh, timis yi mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxee lu ma faram dellu leen nuyu dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko woon ci bopp bi la duggee ak yéen ci yaatalu xibaar yi doore ko ak bëccëgu tey gi di première mai bëccëg la bu ñu jaglee liggéey fête du travail fii ci Sénégal nag màggal nañu ko fi bu baax a baax ay centrale syndicale yu ci mel ne CNTS CNTS FC CSA ak UDTS joxante woon daje ca place de la nation di place obélisque lu aju ci waxtaan waak taxawaay ba la ci gënoon a fës daal mooy nu ñu gën a ñoŋalee nekkinu liggéeykat yi ci privé bi sàkku nañu ci patronat bi ñuy bàyyi xelit ñaxtu yi nga xam ne ñii di syndicaliste lii di liggéeykat yi kon ñoo ngi koy ñaxtu nee nañu buñ ci jëluti matuwaay sàkk saafara ci seeni tawat dàqu ñu benn yoon sóobu cib géréw loole lépp dañu ci ànd ak Fatima Touré Alioune Diagne ñu regroupé ci benn coalition centrale syndicale yi tey ci première mai bi ñu daal di tase fi nga xam ni moo di place de la nation ngir daal fay ci lépp loo xam ni dafa nekk seen i revendication ren nag li ci gën a fës bokk na ci ni li nga xam ne nag moo di secteur privé bi ñu daal di yokk li nga xam ni moo di seen i salaire ñoom jàpp nañu ni liggéeykat yi condition yu ñuy liggéeyee ci entreprise yi jaarul yoon. nañu fexe ba yokk soldu ñi nga xam ñoo nekk ci secteur privé bi lépp kuy dem di liggéey boo jëlee transport xam nga ni boo ñëwee ñu yëkkale la wala ñu daggate paas yi ba li ngay fay xam loolu mu dem nañ yokk prime de transport bi. mooy l'augmentation des salaires dans le secteur privé. l'augmentation de la prime de transport. applaudisse nag travailleurs beneen nag nga xam ni défi ñoom ñi mu nekk seen kanam moo di ci eeru digitalisation lañu nekk ki nga xam ni nag moo di Cheikh Diop di secrétaire général CNTFC moom dafa jàpp ni suñ ci jógul rekk tey jii dina am liggéeykat yu bari yoo xam ni dinañ dem chômage. qui ñu taxaw seetlu gis nañu ni digitalisation maanaam xalal yu yees yi tax na liggéeykat yi dinañ wàññeeku bu baax ndaxte. foo gis ñeenti nit daan fa liggéey tey kenn rek moo fay liggéey li ci des nag machine bi moo koy remplacer boo xoolee ci banque yi tamit même chose la tey yow mun nga def sa transfert toog fi nga toog ci sa téléphone portable te loolee dafay rek continuer di wàññi li nga xam ne la soxla ci entreprise yi loolee foog ñu xalaat ci naka lañ koy daal ci contrecarrer tous ces emplois vont ñoom ñi leen di centrale syndicale yi nar a bétti li nga xam ni nag moo di seen i bëgg-bëgg bu ñuy dem yóbbu seen cahier de doléance ci kanamu njiitu réew mi. mais li ñu bëgg aussi wax fii mooy bu fekkee ñu ngi dialogué di négocier bu ñu déggul bu ñu déggul wala fàllewuñu wala fulaaluñu leneen lu xaw mën na jël suñu matukaay te daañu ko jël. si la prochaine rencontre ne nous donne pas satisfaction. fekkee suñuy doléance kenn dégluwuñu. jox naa li nga xam ne nag moo di feu vert képp ñu bokk ci centrale syndicale bi ñu préparer ay préavis de grève. de grève. mu nekk nag bés bu rëy bés bu mag ci liggéeykat yi tey nag ñu taxaw woon ku ci nekk rek ak say pancarte wax say bëgg-bëgg ci digg place de la nation ñu jàpp ne nag. condition yi nga xam ni dañuy koy liggéeyee ci yenn entreprise yi ak yenn patron yoo xam ni falewuñu sax ñi leen di liggéeyal loolee dafa war soxna Fatima Touré jaajëf mu dew euh, ndaje moom mi amee woon ci place de la nation de place obélisque doonoon ci teewaayu ministre du travail di Samba Sy xamle na fa ne daal lu aju ci lu jëmale kanam ne nekkenu liggéeykat yi ba ci ci privé bi ñëpp ci war a taxaw mu ne nag loole ngir mën am faw dañuy amali waxtaan séq ko ak syndicaliste yi patronat beeg état bu Sénégal ngir yëf yi mën a jëm ca kanam ministre Samba si la ñuy teewlooy kàddoom Fatima Touré moo ko taataan. wax dëgg yàlla war nañu waxtaan ci secteur privé bi wax mbirum salaire catégoriel yi waxtaane SMIC bi waxtaane prime de transport yi ñu ne ndax jamono dafa jafe jaadu na ñu def ko aussi ay jéego waxtaan bi tàmbali na amees na ci yaakaar di tax si nopp mooy bi ñu nekkoon déjà 2020 ñu toll tey ci wàllu yooyu ñett yëpp am na ay jéego ñu seetlu ñii dañ ne doyul ñii dañ ne jamono daa jafe wala ñu mën a yem waxtaan waa ngi continuer ce pays est un pays de dialogue ce pays est un pays de palabre ce pays est un pays où l'on discute entre hommes et femmes de raison pour trouver des solutions. Nous avons un dialogue social de qualité qui nous permet de prévenir certaines turbulences et en dépit de la crise ambiante au niveau mondial, de faire des pas ngelawaay avantage comparatif boobu ñu am dañ ko sàmm téye ko ba mu dëgër des ba léegi ci bëccëgu tey gi di feetu premier mai nees di def ba liggéeykat yi ñu leen di dugal ci institut social yi lu aju ci caisse sécurité social ak IPRES ñu audité ko ñi nga xam ne liggéeykat lañu ca fa ñuy liggéey duñ leen may jàmm duñ leen may afiye di leen harceler saa su nekk yi ak yeneen di ponk bokk na ci fi CNTS FC authentique taxaw baxaw jong ak ñi mu àndal di xam le ne chef d'entreprise yi ñu ca bari duñu cotiser seeni liggéeykat baaba bu ñuy defit genn wàll la ñuy def ñu ne loolee dafay war a jugéen tax boo retraité ay jafe nga cay am état bu Sénégal mu def ca kéemtalaay kàttanam ngir li njaatige yi tege ci yoon ndaje mi doon amal tey jii mi ngi doonoon ci teewaayu Pape Fara Ñing ak Yaya Diallo. ci ak mbégte bi nga xam ne am nañ ko bi ñuy màggal bés bi ñu jagleel liggéeykat yi di première mai secretaire général bu synthèse FC authentique profito ci ñaawlu bu baax a baax ñenn ci chef d'entreprise yi nga xam ne duñu cotiser seeni liggéeykat ci institution sociale yi. institution sociale yi dañu ni nañuy dugal travailleurs yi ci gestion wu institution sociale yi moo di nan la ñuy doxalee entre euh, euh, sécurité sociale caisse de sécurité nan la ñuy doxalee euh, nu mu tuddee IPRES nan la ñuy doxalee IPM bi suñu ci duggul travailleurs yi du ñu am danañ am problème yu rëy parce que quand même travailleurs yi am na ñoo xam ni bon c'est la masse silencieuse ni ñu ko mënee wax ci tubaab. duñu wax mais li ñuy li ñuy daj ci seen entreprise ñemewuñ ko parce que les gens dañu ragal ñu dàq leen boo nee man kat su ma waxee dañ may dàq keneen problème boobu du réglé wu. nit ñi am nañu ay délégué du personnel. ngay ci service ay juróomi at juróom-benni at fukki at am na ñoo xam ne sax ñaar fukki at amuñu benn protection sociale waxuma sax loolu mais seen salaire yi baaxul parce que. amuñu dara loo xam ni dafa yëkkati relever seen salaire. Baxaw jonk di ñaan ñu auditer yooyu la institution. nañu auditer IPRES bi IPRES bi ay milliards moo fi nekk bu ngeen seetloo ay ay tabax yu bare hôtel yi nu tuddee am nañu ay hôtel am nañu du n'importe lu ne la ñu am te IPRES moo ko waa léegi travailleur bi du ci gis boppam ngeen tëdd ci ay milliards rek di ko séddoo. ci conseil d'administration. wax na tamit harcèlement bi nga xam ne moom la ñuy teg ñenn ci liggéeykat yi ci seen bërëb yi nga xam ne fa la ñuy daanee doole. nous avons beaucoup de travailleurs qui subissent un harcèlement au niveau de certaines entreprises surtout des femmes. dëgg yàlla juróom-benni at juróom-ñaari at fukki at kooku dootul CDD CDD boo jeexalee seet boo jeexalee say deux ans trois ans boo ko jeexalee année ba ca topp. buñ la jëlaatee ci entreprise bi taxawal CDI nga dootoo CDD mënul nekk ay vacataire ak ay volontaire ak yooyu yëpp fexeel ba boo yàgg ca boo yàggee ca entreprise ba ñu bëgg la def loolu ñëwal. CNTS FC authentique nag mu ngi ñaan nguur gi ne ko ñaxtu yi nga xam ne moom lañ jël jox ko bu mu ko jël rek dugal ko ci turwaar yi. bàyyi ba premier mai jot rek mu génn ko waat fëgg ko door cee waxaat. kërug liggéey geneen mu di Dakarnave liggéeykat ya fa nekk profito nañu ci bëccëgu première meg yi wanaati seenu jaaxle jaaxle ga mooy contrat bi lëkkale société bi leen di liggéeyloo ak état bu Sénégal jëm ci jeex nee nañu weeru juin 2024 ca lay jeex bu jeexee nag ñoom luy doon seenu ëllëg jaaxle koo gi ña ngi koy amee ba léegi ci bëccëgu tey ji ñu dellu siwaat ci di ci sàkku saafara ak ku dalal seenum xel Abbas Fall la ñuy déglu mooy secretaire général bu syndicat gi jaboote liggéeykat yi ca Dakarnave ñu déglu kook Mame Biram Diouf ay travailleurs sénégalais ñu ngi fi bon temps yoo xam ni ñu ngi fi te xamuñu seen avenir fu mu jëm donc loolu nag ñuy laaj wala di demander monsieur le président de la république euh, monsieur Macky Sall mu vraiment dimbaluñu ba ñi nga xam ni ñoo war a dox si loolu noonu mu mu mu jox leen ay ay ay ay directives ba nu jublu si dossier boobu noonu su ko defee ñun en tant que ay travailleurs Dakar naa suñu xel mën a dal si jëm suñu kanam. normal na tey jii ni contrat bu jeexee état du ko donc dox na fi conditions yi changé na évolution de la vie change na c'est normal ñu tegaat euh, point yi waxtaane ko mais lépp nañu ko teg ci table ñi nga xam ne ñoom ñoo ko bëgg ak ñi nga xam ne ñooy état du Sénégal ak ñi nga xam ne ñooy travailleurs yi aussi ñi nga xam ne ñoom ci gën a am solo ñu bañ leen a fàtte aussi des ba léegi ci liggéeykat yeeg seeni ñaxtu syndicat national des artisans du Sénégal di fàttali kilifa yi seeni tawat di ci xaar saafara ci bëccëgu tey gi ci lañ ko xam ne nee na ñu daal dañoo mel ne ñu ñu fàtte ci réew mi bari na ay jafe-jafe yoo xam ne ñoo ngi koy dund te jafe-jafe yi mënuñoo jot ci matière première bi ñuy liggéey wàllu suuf mbirum formation ak financement it lu leen tël jamono ji Adja Dior si Bey mooy présidente jigéen ñi bokk ci boobile syndicat ñu déglu ko ci micro Modou Diop. jafe-jafe yi ñu am nag moom dafa ba ndax benn que mooy réforme a chambre de métier ndax que chambre de métier boo seetee que loi bi ko régi 1977 la tey ak bu ñuy ne ci 2023 waaye tey jii boo gisee tey nu nu ñuy a ak tey fi artisanat taxaw xam ba nu war a taxaw di taxawal ay syndicat nga war a xam ne tey waa artisanat ak jëm na kanam képp ko amoon mbaar ko entreprise nga moom nga yor su doon taxaw si mbedd mi di liggéey tey tijji nga fenn ba toog fa dafa liggéey léegi les organisations que professionnelles que ñu ngi organisé wu patronat baa ngi organisé wu lépp a ngi organisé ko pourquoi pas la chambre des métiers ya xam ne moo war a taxawal te secteur de l' artisanat yëpp ci Sénégal. donc ñuy réclamer ko cité des artisans euh, cité des artisans ñu war ko def ci région bu nekk waa artisan nu mu ne amee cité des artisans te cité gendarmerie cité leneen ak nekk def ñu jàppee nu informel te kenn nekkul ci informel. CESTI di école bi ñuy tàggatee ay journalistes fii ci Sénégal léegi maam Less Camara la ñu ko tuddee. xibaar la boobu njiitu réew mi Macky Sall moo ko xamle tey jii bi muy dalal ay syndicat ca de la république jëm ci remise cahier doléance fa la ko xamle ginnaaw bi mu jaalee dellu jaale waat Mame Less Camara dellu si waate ci diggante euh, SYNPICS di euh, syndicat gu jaboote ñi yëngu ci tasum xibaar ca la xamle moom président de la république Macky Sall ne école bii di sesti léegi maam Less Camara la ñu ko tuddee leneen ci wàllu xibaar Kéba fal ak Ndeye Kumba mbay dañu doon liggéey ci société des grands domaines du Sénégal tey jii nag dañu leen a dàq dàq bi nee nañu waxuñu leen lu tax ñoo ngi dundi jafe-jafe atum yàlla ba ñu ñàkkee seen liggéey ak léegi ca ndar ga ñu dëkk fal la leen Ousseynou Diop ak Habib Seck fekki woon ñu teewlu reportage bi. compagnie sucrière sénégalaise kilifa yi daan nañu dalal syndicalistes yi nga xamante ni ñoo nekk ci bërëb ba ñoom nag daan nañu àddu ci jafe-jafe yi nga xamante ni dañ koy am tina ñaari téeméeri junni tonnes yi nga xamante ni bëgg nañ ci egg ñuy nag état bi da ca war a gën a mën a taxaw ngir jafe-jafe yi entreprise bi di am moom di ci saafara état moo si mën taxaw suuf yaa ngi fi di désert kese ay ñax ñax sax saxatu fa suuf bi c'est disponible donc volonté politique moo si des moo tax ñuy lancer appel un appel à l'État góor góorgóorlu. ci kàddu waa direction bu compagnie sucrière sénégalaise. ñoom ñi ñëpp nga xamante ni daje nañoo ñoom ay jafe-jafe la ñu am ci bërëb yu ñu daan liggéeye ñu daal ne ni licencié ci na mu gën a gaaw. Keba Fall ma nga dëkk ca Mbaxana moom ci ñu nu mel la bokk ñu dem seen dëkk fekk ko fa waaye dafa mel na xor bu naqat yi la ma depuis 2013 bi daaw laa fa mhm. rek ñu arrêté suñu contrat kenn woowuñu kenn waxoon tamit lan la. ci gis-gisam sax état moom mel na koy jàppale bërëb yi nga xamante ni dañuy liggéeyoo askan wi te bu ñu paree dàq leen ci anam bu leen neexee. ndax tamit loolu benn côté tamit ñoom liggéey dafa dafa des côté boobu ci service yi nekk fii dafa bëri si côté bii fii bëri ñu demaat ci beneen dëkk ca Lamsaar maam Kumba Mbay lañ fa fekk moom fukki at la doon liggéey ci bërëb bii di GDS waaye nag la mu gis moo di dañ ko dàq ci dàq boo xamante ni teguñu ko benn ci yoon. booru daaw laa gëj liggéey ba léegi di semaine gedes woowu ma faale wu ma jëlu sunu carnet bi nu doon dagga sax pour ñu faj ñu sax dan ka arrêté. am lu ma metti toog naa sama néeg bi jooy ruy sax ndékkee naa ko ndax bañ ku ma yeb ndax góor su ne da ngay daw ku ni bañ ñaan sama ñaq rek laa wóoloo. maam Kumba Mbaay di dund dund bu metti mu gis ni sax dañu tas yaakaaram. ñuy teg kenn gi si laa jënd sama terrain bi dem ba de si tabax ni GDS arrêté na état yi kenn wax sunu syndicat yi nag wax nañ si ba dee. ñoom ñi nga xamante ni dañu dëkk ci ay dëkk dëkkaan di liggéey ci ay bërëb yoo xamante ni fii la nekk ci seen ay gox li ñu gis mooy ñii nga xamante ni ñoo leen di liggéeyloo lu leen neex la leen di teg te itam saa su nee la leen di dàq te état du ci wax. seeni ay syndicat cote ñoo ci yëy yàbbi. Mamadou Diop. xëy na bu ñu leen waxee tur yi rek yam ca du leen wax dara waaye dañu leen di xamale ak moom defub nataal li waral nataal bi mooy Mamadou Diop muuma la boo xam ne plombier la euh, di liggéey ci seen eau bu Louga am na soxna mu ngi toll ci ñeent fukki ak juróom-ñett yor na ay doom euh, njaboot gi nekk Richard Toll fa la cosaanoo moom Mamadou Diop donte sax muuma la terewul liggéeykat dëgg la ay naataangoom ñoo ko ko seedeel liggéey bi moom amu ci morom ma ngi cay def la ko war mooy kan dëgg-dëgg moom Mamadou Diop Thierno Fall. moom mi ngi wuyoo ci turu Mamadou Diop yàlla dogal muy ak ab muuma nekk itam agent ci seen fii ci diwaanu Louga wante moom mi de laagoom bi teewu ko nekk jàmbaar ci liggéeyu plombier bi nga xamee ni si moom lay amal ci kër gi les compétences sérieux dafay teel a si déjà moom avant sept il est là te ñun ñu war a dugg à 7h30 euh, soo ko soo ko dénkee liggéey bi da koy def ci lu mu waree te consigne de sécurité yi ñu ngi ko jox da koy respecté. ci atum ci la Momadou tàmbali woon di liggéey ci kër gi comme journalier ginnaaw bi nag la ko société bi recruté mu nekk tam ku sawar lool ci liggéeyam. avant loolu journalier la woon quoi après lañ ko recruté. dans le cadre du RSE mu nekk agent euh, plombier de la direction territoriale. waaw j'avoue que au début. Euh, yombul woon mais après on s'est adapté à lui ñu fexe fekk si ko par le langage des des signes. moom nag laagoom bi teewul lépp lu ko war ci liggéeyam da koy def ba mu mat sëkk. bon li ma gën a impressionné si moom it mooy que euh, maanaam largeur yi muy demandé ak profondeur bi muy demandé moom du ko may kenn suñu liggéeyee pare pour ñu suulaat kàmb yi aussi. il faut que ñu suy ko aussi na mu waree si sinon kenn du boucher. leneen lu nga xamee ni si collègue am yi seedeel nañ ko ko mooy fonk gu mu fonk njabootam gi nga xamee ni si moom la bàyyi ci Richard Toll ga mu fekk baax. famille aussi danoo obligé jël le comptable li nga xam ne lépp li nga xam ne moom mooy salaire moom moo koy gérer avec avec avec sa famille. li mu war a envoyé njabootam lu envoyé souvent sax sa sa moom mooy ñëw. souvent ñu toog ñu gindi moom lay jox pour njaboot gi ñu yóbbu ko yëpp. moom Mamadou Diop mii nag am na lu toll ci ñeent fukki at ak juróom-ñett am soxna yàlla denk gun ko ñaari bant muy nag nga xamee ni si mën naa nekk royukaay ci bépp way laago. Cheikhna Fall jërëjëf waxtaanee ba léegi ba sub tey bi di fet du travail diwaanu Matam union régionale sud sas ba foofee ñoom yënguwuñu yëngaluñu màggaluñ ko ci benn fànn. li tax daal mooy la ñuy naqarlu nee nañ mooy ni ministère de la santé di doxalee ak ñoom ndax euh, wàllu paj mi mi ngi ci ay jafe-jafe te gisuñu menn pexe moom ministère bi jéem na ko ci loolu nag la ñu bëgg mu dakk tax ñu doon wane seen bopp Ali Bandel ñoo mu safaanooloon ak ay manifestation yi ñu doon amal màggal premier mai laata ñuy jébbal cahier doléance ci loxo autorité yi union régionale du sas bu Matam kat dañoo tànn wone seen naqar bu baax a baax gannaaw coow li dox seen diggante ak directeur hôpital bu Ourossogui te ñu jàpp ni ministère de la santé def leen du mooyu tax na kon ba syndicaliste yi yëngu ci wàllu wérgu yaram tànn dajek taskatu xam su fekkee am na nuñ ko daan defee doon ko feetoo doon ci toog wala di def ay marche wala jël cahier de doléance yóbbu ko ci maanaam ñi nga xam ne ñoo jiite région de Matam ñun dañoo décider tey dañoo jël dogal tey ne loolu duñ ko def ndax bala ngaa mën a def loolu dafay fekk nga nekk ci maanaam jàmm wala nga nekk ci lu la neex waaye li ñu nemmeeku mooy dañoo gis ne ñooñu euh, maanaam cër la ñu joxul sax liggéeykat yi nga xam ne dañoo nekk ci wàllu wér yaram yi ay jafe-jafe li indi jafe-jafe ci région de Matam benn directeur hôpital ñu jël ay prime am en complicité nag ak conseil d'administration bi ñu jël ay prime am yokk ko. benn mooy ne ki nga xam ne moom lañ jiitaloon fii ci région bi nga xam ne moo nekk secretaire général bu syndicat di Amadou Lamine Sano. ñu jëlee ko ci poste ci chef de service des soins infirmiers de l'hôpital de Ourossogui ñu ne déetawaay ñuy dox. ak la complicité du ministre de la santé ou ministère de la santé ñu jël affectation maanaam jëlee ko fii ci seen coobare bopp ci nu leen neexee di ko jaay doole wala di ñuy jaay doole jëlee ko fii ci nu leen neexee ñu ne yóbbu nañ ko dakaar loolu nag en tout cas ñun ñi nekk fii ci Matam ñu ngi xam le ne lu ñu métti la te dañuy continuer di ko xeex. lu ko dalee ci fan bu njëkk weeru mais wi ñu nekk union régionale sud bu Matam nee nañu daañu gën a baral xeex bi ak plan d'action bu bees bi ñu nar a tëral lépp rek ñuy gën a sàqu ñu daal di delloowaat seen secrétaire général ci postam bañ ko dàqee ci l'hôpital bu Ourossogui waaye itam ñu annulé affectation bi ko fi war a jëlee ngir mu dem wutali Dakar. waxtaane wàllu politique ak dialogue bi njiit réew Macky Sall woote. ñi nga xam ne ñooy ndaw yu parti bi di grand parti di parti bi Alaaji Malick Gakou jiite àddunañ ca jëmee ñoom nee nañu bu doon seen sago duñ ci wuyu ndax dialogue bi sincérité amu ca fañ ko wékk tey jii lañ ko xam ne ci ndaje muñ doon amal Mor Diaw lañuy teew lay kàddoom mooy coordonnateur national euh, yu ndaw yi parti bii di grand parti ñu déglu ko ak Mamadou Fall. président de la république woote na dialogue tax ba ñu dajaloowee ñun ndawi grand parti ñu ne demuñ jëmuñu ne. Euh, jaloog boobu lu sincère la gëmuñu ne dialogue boobu war na ko mën a def dans la mesure où président Macky sàll mi woote dialogue bi ñun jàpp nañ ne c'est pas sincère à son niveau moo tax ñu ne ñun ànduñu ci dialogue bi tey ànduñu ci ëllëg te ci loolu dañuy woo suñu président muy président Malick Gakou bu demee conférence des leaders bu yeewi askan wi nga xam ne grand parti foofu la bokk mu défendre position boobu ba position yeewi askan wi nekk ñu bañ a dem ci dialogue boobu parce que quand même mënoo di maate sa opposition di leen xoqatal di leen ñoñatal ne da nga leen réduire à leur plus simple expression nga dem ba xam ne mënatoo ko il te reste huit mois nga bëgg xam ne sës nga ci miir bi nga ne da ngay woote dialogue dialogue ba nga xam ne nii ay compromission la ñun d'accord uñu ci moo tax président Gakou ñi ngi koy wax bu demee ci conférence des leaders Yewwi Askan Wi na fa défendre suñu position comme quoi que nous sommes contre toute forme de dialogue à partir de ce moment nag ñuy woowaat suñu militant ak suñu responsable ne ñu taxaw déterminé wu pour que lii nga xam ne nii mooy xeex bi mooy président Macky Sall fi ñu continuer ci xeex ba incha allah président Macky ngir waajal ndaje mi nga xam ne forum économie sociale ak solidaire la yéene ji mooy fexe ba gën a jox ndaw ñi dooleel leen ba ñu am ay matuwaay yoo xamante ne daal dañ ca mën a jaare ngir di suqaliku. loolee nag doonoon ci teewaayu lu ëpp juróom-benn fukki réew yoo xamante ne jikkoon fas nañu ci yéenee bokk ngir gën a dooleel ndaw ñi yeneen jotaayu xibaar des na leen dégtal kàddu yi maam Bass Souaré secrétaire général consortium jeunesse sénégalaise jëm kon ci eh, wowi li mbokk yi fii lañu yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média amoon mbégte àndoon ci ak yéen vingt heures di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi yàlla ñu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm ba ak jàmm.